Pape Abdoulaye Touré maa ngi lay fay di nuyu euh, képp koo xam ne yaa ngi suivre à travers euh, seen euh, site presse bi ngay ñëw. tey nga ñëw nga xam ne Pape Djibril Fall nekk benn confrère nekk journaliste déposé candidature am si élection législative yi ñu jublu nga ñëw fi tey mënoon nga xam te. waaw démb ci guddi la ma lañ ci waxtaan gis naa affiche bi avant bien avant ci réseaux sociaux yi mais il m'a saisi personnellement pour me dire Pape Abdoulaye Touré. demain dama war a def point de presse pour annoncer sama candidature ci élection législative yi ñu jëm donc ma bëggoon nga teew ci aussi ma nangul ko ko parce que Pape Djibril euh, bokk na ci jeune yoo xamante ni jeunes yu ñu yu war a roy lañ ay exemple lañu ay référence lañ parce que yàgg na bu ñuy duggee ci ci journalisme waaye boobu ba léegi mun ñu fee wax lenn loo xamante ni lu safaan ak nu lu ñu défendre la muy ay principe éthique ak déontologie yoo xamante ne lu ñu gëm la te réew mi yitteel ñu tamit moo tax bu ñu ko waxee automatiquement ma ne ko pourquoi pas ma ñëw teew ci li nga xamante ni mooy point de presse bi assisté ko raison pour laquelle looloo waral tey sama fii. gis la nga engagé wu trop si côté citoyenneté moom mooy xam ne euh, fës na si wàllu boobu noonu nan nga jàngatee comme par exemple à chaque fois da nga gis ay journalistes nga xam dañuy taxaw si télé wax ba si yàgg jékki-jékki dugg si politique jékki-jékki changé. waaw xam nga politique moom ay na yoween ñëpp a koy def à moins que ñun ñu xam la mooy définition politique même ñun muy ñun activistes yi muy ñun ñi nekk ci mouvement citoyen yi ak ñeneen ak ñeneen ñu yor association yi politique sa seule définition c'est l'art de mieux gérer la cité man noonu laa ko jàppee donc dès ko mu nekk l'art de mieux gérer la cité maanaam nekk ci bëgg-bëgg askan bi di dox ci luy saafara jafe-jafe askan bi je pense que ñoom ñun ñëpp mun nañu wax ni muy journaliste ak muy keneen ak keneen ñun ñëpp ay politique ay politique lañ maintenant la question qu'il faut euh, poser mooy ndax est-ce que ce sont c'est la même pratique avec ces politiciens classiques yi nga xamante ne ñu ci bëri mu nguuru la jël alalu askan wi fen askan wi diggee diggee yu dul jeex soo faloo wan ginnaaw say promesse ak say engagement yi nga teniroon maintenant c'est là où se trouve la question léegi nag ñun en tant que activiste en tant que ñi nga xamante ne ci kii la ñun dañoo jàpp ni loolu mooy charme wu démocratie démocratie mooy képp koo xamante ne dem nga ba jàpp ni war nga mën a représenté askan bi ak fu mu mënti doon muy dans a gouvernement muy ci assemblée nationale muy ci mairie muy fu mu mënti doon je pense que war nga mën a taxaw ne man dama bëgg représenter askan bi maintenant c'est euh, au peuple de dire euh, ndax d'accord na ak yow wala d'accordul ak yow waaye ku ci nekk am nga sañ-sañu sa mbébét bi nga am ci réew mi nga nga nga wax ko nga wane ko nga fësal ko sans tergiversation aucune. waaw xam nga question boobu nag euh, dinañ ko poser au niveau de la base parce que ñun euh, mouvement la mouvement citoyen dénommé Sénégal na notre priorité il nous a fait euh, l'appel donc dinañ ci dem waxtaan ak ñuy membre képp kuñ ci mën a waxtaan dinañ ci waxtaan ak ñoom. ñu xool parce que du moom kese ñeneen ak ñeneen ñëw nañ ñu dis ñu seen i candidature nous jolo apprécier au niveau de la base pour donner une suite face à cette invita à cette invitation maintenant feneen fu may tëjee mooy en tout cas nous tenons à encourager tous ces jeunes là ñi nga xamante ni jàpp nañ ni anam bu ñu yoree réew mi war nañ ko mën a soppi war nañ ko mën a changer mënuñu nekk plus de 60 pour cent de la population amuñu baat suñu waxee kenn duñu dégg fenn rek lañ ñuy déggee mooy ñu wàcc ci mbedd mi mooy ñu ñu taal pono mooy ñu baare autoroute loolu je pense que loolu lu ñu war a mën a dépassé la war nañ ñoo mën a dégg à l'Assemblée nationale nga xamante ne mooy le deuxième pouvoir de État nga xamante ne son rôle principal c'est de c'est de contrôler les actions du gouvernement donc assemblée boobu ndaw yi war nañ fa fees su doon téeméeri euh, nit ñoo fa war a nekk je pense que 60 wala 80 pour cent ay ndaw lañ war a doon parce que ndaw mooy avenir u réew moo yor ëllëgu réew donc ñun tamit il est grand à ce que ñuy dégg suñu baat pas di ko dégg ci ay sànni xeer pas di ko dégg ci ay talpona mais ñu koy dégg fi ñu ko war a déggee muy fan muy assemblée nationale donc loolu je pense que je tenais à le dire encourager tous ces jeunes et que incha allahu rabbi nous en tant que mouvement je peux prendre cette décision de principe que nous allons encourager ces jeunes la euh, yi nga xamante ni ñu ngi jub sol seen dal pour tegu ci li nga xamante ni mooy jëmale réew mi kanam waaye aussi xool lépp luy jafe-jafe askan bi ñu jëm ko saafara rawatina jafe-jafe ndaw ak étudiants yi aussi